léegi man quatre-vingt-dix laa judd Ndiaye. ba fi ma toog di wax ak yow xaw ma xam. waaw léegi problème bi mooy. Ndiaga dama dem ba am problème ay kayit. waaw fu ma dem dama am jëkkër mu liggéey. ma war a am papier de mariage. Hmm. war a am carte d'identité yu bees yi mënu ma am kayit fu ma dem ñu laaj ma sama carte d'identité pap hmm. te musuma ko teg ba. deuxièmement bi mooy sama yaay dafa mel ne li li li sama papa def dafa mel ne ci man la ko bëgg a fay. barke Serigne Babacar Si Ndiaye. Ndiaga ma lu ma am ma defal ko sama sama gis ma gis ay diplôme la yebal. lan nga yëg ni moom la ko sa papa def ba muy war a fay wi ci yow. xam nga sama papa sama papa sa sœur grande sama sama grande sœur yaay. Mhm. nee na ma cousin moo ko moo moo ko ëmbaloon. Mhm. ndax ba sama yaay dafa nekkoon ci ay problème divorce nekk ci ay problème yor ay m di dem di liggéey ba sama papa fekk sama kër gi mu doon liggéey mu ëmbal ko. Mhm. léegi xam naa ne mun naa am fekk naqar boobu la bëgg a sikki sama kaw te man defuma ko dara. waaye nag yàlla suturaal na ma ne doom yi mu jur yëpp man kese la ci yàlla suturaal. tey soxla mu maa koy faj bu soxla yëre bu wax man la bu feebaree man la lépp man la mais yàgg sama yaay mënu ci man lu toll na sa fatal ay hmm? bi sama yaay mënu ci man dara je pense que chômage lu mu doon dugg loolu la publicité man jaga du ma ci dara. ndax moom yoroon na suñu sa sa sa lenn loo xam ni sa photocopie papa wala sa nangam. sama papa mu ngi fii sama yaay boobu nangu mu yóbbu ci moom. yow mos yow xam nga ni moom mu ngi dund. mu ngi dund mu ngi. Mhm. ma feebar ñu indi ma sama kër tante boobu noonu. Mhm. moom su fa ñëwee su ñëwee moom su su gisee sama tante boobu daf may laajte man. Mhm. daf may laajte damay day laajte sama yaay. tante papa. waaw mais xamoon nga yow xamoon nga ni sa papa la. sama tante boobu moo ma ko wax. moo la ki fi ñëw ni sa papa la. mu ne ma sa nijaay diw mooy sa pap sa mooy sa ma parce que keroog bu sa yaay ëmbee parce que sama ñoom nijaay ku ma ko laaj rek mu ras mu ne ma sa yaay bu ma la ëmbee ba mu am ñaari ma ñun ñu ñoo defoon ko du man ndax dama yor jabar sama yaay nee na sama yaay jóg ni ko yow yaa ma ëmbal te xam nga ne bu baax ni yow yaa ma ëmbal na ñoom ñu retourné sama yaay sama yaay moom effectivement fa la nekk ba ba ma judd fa far mu médecin lu ñëw ci moom di situation yi muy dund moo indoon mu génn di liggéey di liggéey tey ba ñëw buur ba yàlla mooy mu fi beneen jëkkër joo xam ne mu ngi mm-hmm. mais problème bi mooy jarba mënu maa am këyit këyitu suukar mooy problème mu këyit mm-hmm. ndax yaa moom mu leeral na ko peut-être ni mu ko waxee it xaw nañu choqué mais ñu baal ko ko rek te xam ne olof yi moo setul mm-hmm. donc yaay moom juddoowul ci buum yaayam fa mu nekkoon di liggéey foofee la fa yaayam jëlee ëmb muy moom ñi mu juddu quatre-vingt-dix Eh, mais ba tey daal kayitu juddu mooy problème amul kayitu juddu te am na borom kër war a am papier de mariage ay doomam yi te war a am kayit ndax itam moom amul carte d'identité ko amul kayitu juddu nag warta am carte d'identité mm-hmm, mm-hmm. yaakaar naa ni nag eh, émission bi pour door dañuy interpeller peut-être waa AJS wala ñu interpeller suñu xarit Ismaïla Kambé touche pas à ma sœur parce que en général problème kayit moom daan nañu ci dimbali bu baax a baax ñu leen di interpeller ah, ci ndaw si it doonte xamul baayam doonte nanguñu ko wax baayam Euh, am na droit am sant bu dee santu yaayam la sax am na droit am sant bu dee santu jëkkëram la sax mais am na droit am sant am na droit am kayit am na droit am euh, carte d'identité parce que euh, nationalité sénégalaise la mhm. refi mu toll nii nee nañ nag ku amul kayit bokko fen moom nag bokkul fen mhm. fi mu toll nii kenn mënul wax ban xeet la bokkul fen parce que amul kayit gi nga xam ne mooy tax ñu mën a dëggal ni diw mii bile nationalité la kon problème bi dafa bari ay faas yuñ ko war a bi ci jëkk mooy yaay ji yaay ji jur doomam parce que ki juddu demandé wul. juddu. neewul dama bëgg a juddu juddu. léegi ci ci euh, façon yaayam ak pexeem walla wala jëfinam. ci la moom mu sosu ba juddu. mu am responsabilité bu mag boo xam ne yaay ji la concerné. parce que doom nawle la. Mhm. te comme yaa yaa jëf ba am doom. Mhm. war nga mën a jël responsabilité nga bàyyi ko mu juddu. Mhm. parce que bu yàqoon biir yàlla na ma yàlla jéggal du juddu. du juddu soo su euh, xalaatoon jur rey du juddu. mais ba mu accepté nattu dal ko mu nangu ba doomam juddu mu yar euh, ko ci koccal ba doom ji màgg war na nekk en mesure ci responsabilité wax ko kan moo ko jur. parce que du ko fi njëkkee te mu njëkkee ko fi te du ko kon war na mën a jël responsabilité wax doomam kan moo ko jur. su ko waxee kan moo ko jur mu dem toppatoo ji baayam parce que léegi si euh, ay tuuma ak daf ma ni ak wóoratul jeex na. bi test ADN amee. Mm-hmm. ci la loolu yëpp leer yàlla indi na solution. Mm-hmm. mooy nañu dem mu interpeller yaayam parce que tam gis nga euh, euh, dañu escamoter sujet yi gis nga gis nga mantu sans responsabilité famille dañ ko dañ ko yàq la famille africaine la famille sénégalaise est très élargie. Mm. famille bu élastique la parce que bu ñuy wax bàjjen wax jaay ñooñu war nañu mën a intervenir ci problème bi am ci biir famille. ci sa doom wala ci sa jarbaat. mais ana nijaay lan la fiy def ana bàjjen lan lay def. Mm-hmm. kon nga war nga mën a dem nga seeti leen ñu seeti sa yaay su la mënul wax directement mu wax la. ni parce que jigéen ku mu ni kii mooy sama bàyyi doom ko jur. dëgg la de moom rek moo ko mën a wax. ku jigéen ni kii doom moo ko jur. c'est vrai de. te gis nga àdduna kenn xamul koy géej ak mm-hmm. doom daal foo ko jur. Mm-hmm. nangu ko. te te mhm. bàyyi ci li ci sama borom. Mhm. parce que dom alalu yalla la. Mhm. nit seyna ba xey faatu amu dom nit am teranga teraanga bu dul jeex amu dom kon dom dom lu yalla may cadeau la bu yalla di may dom aadama boo xam ne. waruñu ko dévaloriser à tel point que dom juddu ba wara am 25 ans 30 ans. amul kayitu juddu xamul kuy bàyyam loolu c'est irresponsable mhm. parce que jigéen bi nga xam ne dafa nekk ci néegu sëy di sëy mhm. la tax parce que fase yàlla moo ko bind daganal ko waaye mooy li mu gën a bañ ci li mu daganal te situation moo ko war a indi teg ko jigéen mhm. soo dee sëy def un choix ànd ak góor ngeen di sëy nga dem ba mënatuloo yaa xam ban raison moo tax nga bëgg a demander divorce nga ñaan baat ni man kat mënatuma dama bëgg a bàyyi diggante biñ la war a bàyyee bàyyeeguñ la nga ni naa dem takk sama ndig di liggéey yaa ngi ne ci leneen ba nattu fekk la ci. Mm-hmm. kooku doomam def ko dara. Mm-hmm. doomam def ko dara. Mm-hmm. na seet boppam seet digganteem ak boroomam mm-hmm. mu wax ko kan mooy baayam su ko mënul mu wax ko nijaayam la bàjjanam seeti ko ñu dem seeti ki ki nga xam ne mooy papaam mm-hmm. ñu wax ko ko parce que am jabar teewu la am nattu bis bu ne nit am soxna tag ko ci fàtte yàlla sunna moom nattu dal la feneen nga wala jël sa ko ndax kenn xamul ko la yor su ko defee ay mbokkam taxaw wax ko ko mu dem seeti ko ko a faale ak di ko bañ a jox benn affection doom ji su dee mere boppam parce que diggante bi ngay ñaan baat war fee mën a takk sa digg xaar ba nu jot la parce que soo gisee ñu naan la boo dee ñaan baat buñ la mayee dina boo boo fasee ba pare dinañ la may ñetti weer. Mm-hmm. muy moment d'abstinence boo xamante ne da ciy jàpp sa idda. Mm-hmm. pour nga am ci ñetti fóot pour li la liye woon ak waa ji ñu xam ne dagg na définitivement. Mm-hmm. mooy su dee ëmb dina leer su dul ëmb dina leer en ce moment ci ngay mën a dem sax sëy ak keneen. mais waxuma la nag lu toll ni loolu am mayaguñ la baat nga indi ëmb teg ko ci sa kaw société. kooku yow ci sa bopp nga war a mere. soo amee looy wax sa bopp nga ko war sa doom ji defu dara. parce que mu demandé wul juddu. nekk doomu nit ku baax bokk ci société war na am ndey am baay am am bu ëllëgee ko koy taxaw. Ah, parce que ku nekk ak sa rôle. yaay am na rôle bu muy joué mais baay aussi en tant que doom am na un rôle déterminant bu muy joué dañuy def dara ba pare tu paye les pots cassés. Ah, mi ci sa yoon nekkul jëfoo fekkee woo fu ñuy la ba pare bëgg la een bëgg laa mere bëgg laa bañ teg ko fenn. su mm. dañ koo tooñ su amee ku muy xul na xul boppam mais doomam defu ci dara na ko wax kan mooy baayam mu seeti ay kayitam toppatoo ko nekk citoyen mën a am mën a def devoir de citoyen mais est-ce que est-ce que est-ce euh, que loi au Sénégal waruñu am ay coppite yu ñuy coppite en faveur des femmes loolu it war nañ ci waxtaan ci 88 628 89 90 ngeen bës deux parce que yaay buñ nekkee ci réew moo xam ne daf ci am du ma ni bari na waaye daf ci am ay góor yoo xam ne dañoo irresponsable góor ñoo xam ni bu ñu ëmbalee dañuy bañ góor ñoo xam ne dañuy nekk ci buumu sëy ëmbal la nga nekk ci buum bi ñu abandonné la ak say doom góor ñoo xam ne dañuy am ñaari jabar takk-takk suuf nga am doom duñ ci jël benn responsabilité góor ñoo xam ne dañuy am ñaari jabar takk bi fësal nañu ko waaye buñ amee yow doom continuer ca keneen ka bàyyi ka ca des maanaam xeetu abandon la yooyu yëpp lu ci mënti am day nekk doom yoo xam ne en général seen yaay rek la ñuy féetewoo gisatuñu baay ñu taxaw ci société boo xam ne njaga dañ ñu ne mhm. sooy euh, utal sa doom kayitu juddu soo présenté wul carte d'identité góor mhm. papa boo mhm. présenté wul carte d'identité góor góor lañ la wax sax góor duñ ko déclaré góor gi mën a nekk sa papa yow ji jur mun na nekk sa far booy génn mun na nekk ku baax ci koñ bi rek ku la mais il faut pièce d'identité gore pour nga mën déclarer xale bi